c'est-à-dire. c'est-à-dire néew ma kenn yow lay àndal. ah yow nga ne mosoo génn benno ma foog ne da ngaa da ngay delluwaat benno benno ko moom. waaw mais benno a un candidat. c'est moi qui est Amadou Ba. c'est moi je suis le plus légitime. comment ça tu es le plus. mais man maa nekk membre fondateur de Benno. waaw mais vous n'êtes pas choisi. Ah, kon Macky Sall lu ki gën a légitime ah, non mooy ki Benno tànn. Benno tànn Macky Sall déedéet. Macky dafa concerté wu avec tou les parti de Benno. waaw parti Benno yëpp. d'accord ci choix wu Amadou Ba d'ailleurs la a été investi par l'ensemble des parti de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba Amadou Ba a été investi par Benno d'accord na. waaw donc moom moo moom moo am légitimité. Benno la bokk. benn cadeau fa mooy Macky Sall. ma waaw d'accord non. la preuve man kenn dafa nekk ak ay ay ñoom Moustapha Niass ay nawleem. waaw ak man waaw man Moustapha ne non. Euh, déglu ma Moustapha Niass moom moo dirigé opération yi. man dirigé wu sama man du ma du ma recevoir. mais à partir man Macky ma recevoir. parce que man du ma xam nga man chef de parti la Moustapha Niass du ma recevoir ñoo yem ñoo yem grade. <laughs> Benno c'est les c'est les partis coalisés alors que ñoom du recevoir képp ci chef de parti nii Amadou Ba ni Aly ni Boun Abdallah jon ni Mame Boye Diao ñoom ils sont de l'APR ay bokkoon. waaw kon mën na leen recevoir dans ce cadre man may chef de nawle mën na ma recevoir pour lan man président moo ma recevoir looy rek. man kay waxuma ne ñes de la waxuma ñes de la recevoir dama ne. Macky dafa concerté ak ay nawle dama ne. waaw ah. bi ñu toogee salle des banquets xanaa dégg nga ñu ne ci l'observateur benn voix discordante dama fa am même El Hadji il va se présenter alors vous étiez informé mm-hmm. parce que une coalition c'est pas un parti amul chef c'est des partis dégâts de dignité mais par contre dans l'esprit de beaucoup de Benno lépp lu Macky décidé dañ koy war a topp alors que gënuñu maa bëgg Macky de gënuñu maa fonk Macky mais ñu ci bëri dañu fa dañoo nekk taalibe Macky Sall ñu ci bëri buñ tarbiwul li Macky bëgg moo tax ñoom ñoom ñu ànd ci li Macky bëgg ah bon man ñu yuuxoo ma ci am na un jour dañu ma yuuxoo dégg nga loolu biir palais wala yëgoon loolu. non dégguma loolu. mais pourtant am na émission bu ma def ak waa waa TFM ak ñoom Serigne Dia mu ne ma tax ñu la yuuxoo. waaw mais yow d'accord ma ne ko yuuxoo bi li ko waral mooy d'accord ci choix wu bennoo bi. non dem nga rëkkale nañu la nga ne da ngay delluwaat benn. man maa dama dellu benn. <laughs> waxuma loolu. Eh, dama ne àndakuma kenn. ah mais benn moom kenn ëppale wu ma ci laal ba su ma génn benn. léegi lan mooy sa avenir. si làng bi mais mais. Amadou Ba n'est pas le seul candidat de Benno moi je suis candidat de Benno aussi. oui mais, je mais, mais, mais vous êtes candidat recalé. recalé par qui. ah recalé par le parrainage au conseil constitutionnel. waaye ci Benno la yow bul tëb di so du desal pas du coq la ci biir beno ki recalé wu ma. non non Benno kay xam naa ne. boo bëggee Benno da ngay adhéré adhéré librement àndandoo dóorandoo diktat amu fa par contre. c'est vrai yi ci ëpp ñëpp dañu nangu diktat ku ci nekk ñu ci bëri ñu yuuxoo ma président toog ma ne président daal nga Amadou Ba de waaye man je maintiens ma candidature ñu yuuxoo ma ma ne yéen yéen ñàkk jom yéen ma ngeen yuuxoo <laughs> parce que yéen ngi toog ak président dialogue ma président mooy xool peut-être muy sataan ma ne ko président bu tàngee ba tàng maa koy défendre réew mi bu tàkkee bàyyi taxaw défendre réew mi président mooy suma xarit xam ngeen ko mën naa koy defaan yéen a pat tëju seen kër yi na nëbbatu ma jël ay risque bañ taal sama kër mais tey comme yéen a nekk quatre nekk lii biir palais salle des banquets yéen a jàll président parce que bëgg na Amadou Ba nekk candidat man ma ne d' accord ma ci ma ne candidat laa ngeen di ma yuuxu. waaw mais d' accord loolu jom la déglu ma ñi may yuuxoo te kenn mësul la gis ci combat bi. waaw ay naa ma ne nii ay naafeq a demande président. waaw d' président ne El Hadj Diouf a raison.